sama paata noo gisee julli ubbi tey julli jumaa ji tey nga boole diwaan gi waaw julli jumaa ji ni ma ko gisee mooy maanaam cosaan di maam Thierno Birahim moo sos mbir mi ndax dëkk bi bi ñu koy sanc sëñ ma paate daa sëñ ma paate dafa ànd ak maam Thierno mu takkal ko fukki fas ak yaar mu ne ko na nga jublu penku boo jubloo penku fas wu yëngatu wu bu neferee na nga wàcc foofu mooy sa wàccukaay ci saani dëkk bi daal di wax bañ defee loolu suñ ma paate daal di yebal ci maam Thierno mu boole ko téeméeri ponk la ñaar fukk ñu ñëw sanjal ko diiwaan si liggéey mu tudd ko diiwaanil di diini bëri bu ñeegal la bëri bu xéewal la bëri bu ndimbal la sëriñ biir wax na ci loo xam ne li neen lu fu waay sakku rek boo ko mu del soxal la waaye lépp nga fi lekk bi ku fi ñëw ku ne loo fi sakku rek mën nga ko am boo delloo ndax fii sëñ parti liggéey na fi Fanu def ak yaar daa togg di ko yut maam Thierno Birahim di ko yóbbul daal mu man mi ci bokkoon ci ñu ko yenu la woon la sama ngi ñu dëkkoon fii kon nag loolu ki nga xam ne bi moo fi nekk xalifa sëñ ma parti Sylla bi di sëñ Cheikh Fan Ndiaye Sylla nit ku dëggu la koo xam ne ki ku ragal yàlla la koo xam ne ki jàngal xuraan rek la xam ak yare nag moom la xam ci moom amul it lenn loo xam ne lii lu muy dang-dangali ci nit loo xam ni lii lu muy lu muy lu muy xool ci nit la lu dul ak jaamu yalla ak ragal yàlla ak nangoo liggéey ak maandu kon nag loolu su jaanal jumaa ji daal foofu daal laa xam ne moom foofu la sosoo kon nag léegi yéen ñi nga xam bi yéenay yéen yi nga xam ne yéen ñi nga ne yéen a nekk ñëw di yoon ci li jël wa jël jëf ji jël wax ji yàlla leen yàlla yokkal xéewal it seen rajo bi yàlla nekk rajo bu gën a mucc ci ayib yàlla nekk rajo boo xam ne bi rajo xéewal la nekk rajo boo xam ne ñu jëggal la kon nag loolu man laa ci wax ci lu ma ca xam man ku ñëw ku daal yal na la yàlla defal njëggal yal la yàlla defal xéewal lo fi bëgg yalla na ko sàkkoo yal na ko fi am ci bo dil ci diwen yalla nga amal lu ko upp ci bari Cheikhul Khadim barke Cheikh Ndiaye nak nga gisee ubbite jumaa ji ak euh, magal diwan gi ñu boole tay bis bi sante yalla di jël ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam euh di and ak euh, xol bu sedd boo xamante ne euh xam nañ fu mu tàmbali waaye xamuñu fu mu yam xana di ñaanal bu baaxa baax Serigne Mountakha basir Mbacké mu yàgg fi lol tan ak wer di ñaanal bu baaxa baax euh, Serigne Abbas Mbacké xalifa borom Daaru Muxti di ñaanal baax wax sëñ Cheikh Fassila Ndiaye mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njabootu suñu parcelle ak yëpp di nuyu suñu buntu ci euh, mboolem euh, njabootu Serigne di Cheikh Modou mu yàgg fi lool te di wax ne suñu xol sedd na bu baax a baax di ñaanal baax suñu kilifa ñu yàgg fi lool te wér euh, suñu xol dafa sedd ba li ñu bëgg a wax sax ñu ko wax ndax li dafa nekk loo xamante ne si ne dafa yàgg nekk si suñuy xol tey yàlla dogal ko tey ji kilifa yu bari jaaram fi te nekk yàgg koo bëgg lool waaye lenn lu ci nekk rek ak euh, faga suñu borom àpp bam ko àppal bu jotee rek day yomb waaye képp ku fi toogal suñu ma paata si la rek euh, mos naa bëgg bis waaye tey la ko yàlla dogal ñuy ñaan bu baax baax ki nga xamante ne si ne ci ci ci ci xalifaam la ko suñu borom ubbee muy suñu Cheikh Fassila Ndiaye suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér ak uh, suñu jëwriñ di suñu Mourou Kara Sylla Diwane ñu ngi koy ñaan bu baax mu yàgg uh, seen Cheikh jégal mu doon ñu gisoon seen presse seen teewaay tey si uh, ubbite jumaay diwaan si la mu ñu lëkkale ko ak màggal ak diwaan gi ban yeg yëg ngeen am ci tewa fii nii ak itam lan la leen ci mën a jàng ci teewaay nga xam moom lañ tey fii di julli si jublu jublu bis bi de wax dëgg yàlla dafa sedd xol julli yëpp ndaxte lu toll ni ubital jumaa joj eh, Cheikh Pathé bis bi ku ko dégg ko nekk xam ne xel ne bis bi mëntoon a ñàkk ndax liggéey Cheikh Pathé fok maanaam dana feeñ ci bis bu mel nii ñun nag taalibe yi nga xam ne maanaam ñoo teewoon ci bis bi ah, ñu ngi ci sant yàlla eh, di gën a kontaan te xam ne lépp loo xam ne maanaam xamoon na Cheikh Pathé liggéey na ko ci penc mi dana mas feeñ ci jumaa yi Ah, di ñaan yàlla li nga xam ne maanaam moom lañ wël di ko di ko dëgmal ñu ngi ñaan yàlla mu yegg ak jàmm ci barke Serigne Touba. ak di kenn si jëwriñ si Amadou Kara Sylla Serigne Mass ñu bëggoon ay baat yu yoo xam ne jëm ci ubbite jumaa ji nga xam nañ ko lëkkale ak màggal gi ban jàng ngeen ci ah, sant yàlla ji di Seydina Mohamed di sant Xaadimu Rasul di sant maam Thierno Ibrahim di sant Cheikh Mapaté Sylla waaye di sant Sëñ Sa Diwaan mi nga xam ne mooy suñu bunt ci kër Cheikh Mapaté di sant Cheikh Modou Kara Sylla mi xalifa sëñ Cheikh Sidi Wane ko ñaan mu yàgg fi ci waaw bés bi taaru na rafet na yeeyoo na ak ki moom bés bi muy Cheikh Ma Paate bés bi ku fi ñëw sa sedd na rawatina naa ngi nag njabootu sëriñ Ma Paate waaye rawatina naa ngi njabootu sëriñ Cheikh la waaye rawatina naa ngi njabootu Cheikh ñu ngi ñaan Cheikh mu yàgg fi ci ak mboolem njabootu sëñ Cheikh Sidi Wane et eh, bi nag nii rek la may demee ndax bés bu ne borom rek la ñuy nuru bés bi sëñ Ma Paate mi nga xam ne mooy borom bés bi di borom dëkk bi di borom jumaa ji di borom njaboot gi kon bu amee bés bu tool nii kon ne xam ne bis bi yeyoo na ko yelloo na ko dañuy ñaan yàlla njabootam gi mu fi bàyyi di jiital xalifam bu tedd bi te dañ sax Fatou Seye Ndiaye ak mboolem njabootu Sema Paate yàlla bàyyi leen fi ca doon leen wér ci daraja Sëriñ Tuubaa xanaa ñu taxawul foofu rek ndax li ñu ëmb ci xol ak yéene ci jëme ko ci bis bi jëme ko ci ki nga xam ne mooy sunu sang di Cheikh Modou Kara Sylla la sunu lamiñ dafa lot ci laal ko waaye nag ñu ngi ñaan yàlla ba li mu yéene liggéeyal maamam yéene ko liggéeyal السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنا بني سنت سني برام بس فانا وطالا تسنت وباخ تي بس بو نغ خامن تني بي مودي بس بي نيو تي اوفي تي تسكو تي ديوان سيلا دكوب سرين ما بات سيلا منك ابتل جمع بو خامن تني بدن كوب ولا ما كقول نغ خامن تني فات لكو جامبار جس سرين ما بات سيلا نكون كن تي جامبار ينغ خامن دانو عند سرين تباس يا مرو خادم سرين ما بات سيلا نغ ابلي جيم نكون كو خامن تني فات داسون لبوجي مون كو تكو تدك سايبل فبيلا Serigne Touba Cheikh Ahmadul Khadim kon tey bu ñu demee bañ tasewaat fii di ubbital juma def ubbital juma kilifa ñëw jiite jumaa ji suñ borom am lu mu ci julli juma jumaa ji egg ñu eh, indi fi mboolem kilifa yi nga xamante ñoo suñu sang si ñu nekk fii jiite jumaa ji ñu ubbi ko ci jàmm ñu ñaan suñ borom defal ñu tawféex waaye suñu ma paat si la nag dafa nekkoon jàmbaar joo xam ne liggéey Serigne Touba rek moom moo ko ñoroon lépp lu mu am tamit ak taal moom moo ko may. kon ñoo ngi waxaat ñëpp rek ñu gën a góorgóorlu ci ak taalibe ci góorgóorlu te xam ne lii lépp ak taalibe moom moo ko maye ndax jàmbaar yi bari nañ waaye kenn ku nekk am na loolu la sëriñ bi maye xam naa daal loolu moom foofu la ñu mën a tëgg suñu kàddu ku baaxam ndax ñu mënuñu wax ci mbooloo. jazaakallaahu xayran jërëjëf. waaw ah, xanaa sant yàlla rek ndax euh, lu mel nii day lu rëy ci ab jullit ndax euh, mandarga la moo xam ne day rafetal lislaam te yàlla daf ñoo diggal fu ñu toll ñu di ko jaamu eh, ni ñu waree di julli julli juróom di ko daje ci waxtu yi ni la ñu waree di julli ajuma eh, ngir jullit yi soree man di gisante kenn ku nekk di gis sa morom di saafonte ak moom te loolu dafay lu war ci diggante te mu doon loo xamante ne bii ginnaaw yàlla sa borom def na fi jumaa mu am fi kon léegi julli rek mooy li war nit ñi di fan waxtu yi nga xamante ni bi mooy bis bisu julli ajuma yi ñu diko tek ndax fi dañu wax ne ñetti ku am war ko julli te nek ci fu am te julli woko euh ah, sa borom du ko kon nak lolu lu mata moytu la kon ñu góorgóorlu di go ci waxtu yi di julli niñ ko wara a ah ñi koy def nak def nañ li leen war ndax képp ko xamni ki xam nga li la war sa digënté ak sa borom nga def ko sant rek lañ lay def ñaan yalla sa borom mu yag fi lool dara ji yoonu ci tay ji moy sant yalla ndax toll ni legub yalla buñ ko amé ba di ko tay ba fekke ko wax dëgg yàlla sant ci yàlla la ñuy def bu baax sant gi it ñun ñu ngi koy commencé sëñ si la mi nga xam ne xam ne moonu may nu fekkee ba di ci def ba di ko teewee gannaaw Cheikh Mba Paate ci soñu nag taalibe yi ñëpp ci sañ bi li mu doon wax léegi ci ab sëriñ akub taalibe ñun dégg nañ ko xam naa ne dafa mel ne nun lay soññaat mbaa boog bi ñu soññeet xam naa ne soññ gi man moo bi man laa yaakaar ne man lay soññ maa ngi sant nag bu baax di gërëm bu baax Silangar Baidam Samapat Samapat Samapat Silangar Baidam Warna Nilindal